ah Au nom de M. maire de la commune de Fatick, il me fait plaisir de souhaiter d'abord cordialement la bienvenue à Thiès Baobab Cycle et de m'avoir également l'honneur de donner le double coup d'envoi de cette belle course qu'on d'assister. du bois de recevoir Thiès Baobab Donc euh, chaque année, il est de coutume maintenant que Thiès Baobab fait le tour du Sénégal. Donc euh, ce qui est sûr est que le ministre des Sports qui aime vraiment le sport et particulièrement le cyclisme va prendre des décisions au niveau du conseil municipal pour qu'on puisse inscrire cette belle manifestation au niveau de l'agenda sportif de la mairie de Fatick. que ça fait des années qu'on n'a pas pu assister à des courses depuis les temps de Pape Fatafay. Donc avec Thiès Baobab Cycle, au moins chaque année, on organise une euh, course de cyclistes. Donc, Donc nous avons mesuré à sa juste valeur l'importance de cette manifestation et des décisions importantes seront prises pour que l'année prochaine, nous puissions organiser cette course dans d'excellentes conditions. jërëjëf borom Touba. bu ñu defee benn initiative bu tudd wër Sénégal mooy euh, def tuuru fukki région ak ñeent yu Sénégal yëpp ak vélo dëkk bu ñu dem ñu may fa junni kay ñu nekk fa ay kay xale xale yi te nag comme jóge nañu Dakar jóge jóge Mbour jóge Thiès tey moo nekkoon ñetti étape bu bu tey bi la Fatick ak euh, kay indiwaat tamit jàppale wala xale ci une éducation leen tamit jàng lu am solo la te jàng mooy lépp te vélo dafa nekk sport boo xamante ne nii boo ko tàmmee di nga tàmm métti di nga tàmm coono di nga tàmm aussi jaayante ak ñafe li nga xamante ni nit bu ko amee ci àdduna rek yàlla bu ko dimbalee mu jëm kanam ñun li ñuy xaar ci Sénégalais yi mooy saa yu ñëw seen dëkk rek ñu accueillir ñu ba pare kay leen indi tamit di leen ko jox ak xol bu sedd guñ xale yi mën a ñëw génn jël si ko. tey ni ñu ko defee Fatick mairie fu ñu fanaan jox ñu lu ñu lekk macha allah accueil ñu accueil accueil bu jaar yoon